Salut les amis de Baba Show et Sport TV. Merci encore Guy de la confiance renouvelée. Merci de du like, merci de vous abonner. merci également des les commentaires. Plaisir renouvelé chaque fois de partager gain information. Inbox sénégalais, 14 régions du Sénégal, de il y a il y il Kalena Djenefil aussi te yexeñu en avance ensemble dans la magie de Babo Show et des Sport TV L'actualité. En contenu gay actuel, nous faisons Wartane Sadio Mané dans le top 3 des meilleurs buteurs africains. Wartiga Armand qui dit Guardiola vers le Brésil. Akir Moïdini, Mida di Mbappé et qui plutôt Salah di ko clash lepp ñu fassé nako wassaré and ci ak yeen indi ci ay léral laata bobu nak mbokk sénégalais di leen djéggalu bu baaxa baaxa baax ci luñ deful vidéo dem mais gis ngeen contexte bi ñu également parce que tamit en tant que citoyen vote yëpp euh, day am mo ñu wax également gaay demagul voter ji dem leen voter ji dem voter ji en masse pendant ce temps Pirlo di un hommage euh, Paul Scholes Disney Scholes au-delà d'être un meilleur milieu de terrain mu ne moom en quelque sorte le cerveau de Manchester United nekk joueur boo xam moom la doon xar équipe bi moom lay xalaatee quoi comme Nico ko waa Real defee ak Toni Kroos nee na moom moo en fonction des déplacements de la équipe bi doon euh, footballé kii également xam ngeen ko le joueur hein, brésilien de Tottenham moom nag nee na carrière am tey jii nii tout à fait football parce que nee test dafa def ay test ba amatul won chance euh, ba ben jour mu dese ko passe à la mu daal risqué jël passe bi né tay mom damay def test réussir suma ma réussir moom laay football far mu réussir. réussir ki nag di Jonathan David moom nag waa Bayern Munich fi mu ne ñoo koy ciblé parce que Mathys Tel wóorul mu daal di fay toog te jàpp nañu kii donc di Jonathan David comme que day jugee Lille saison prochaine te librement la fay jugee ñoom daal dañ cee bëgg def koppar kii nag nga xam ne mooy donc également Ruud van Nistelrooy moom Coventry daal ci Angleterre moo ko bëgg a relancer waat moom mi nga xam ne gis ngeen résultat yi mu amoon ak euh, waa Manchester ba jëlee interim bi donc loolu tax na daal Coventry ne moom la puis nag di Neymar Palmeiras parce que Palmeiras jigéen moo fa nekk seen présidente moom daal li mu wax nee na ñoom Palmeiras nanguwuñu Neymar ñëw fa tax ñoom jour bu blessé moom nga ñëw yaakaar ne foofu centre de rééducation la da ñëw pour faju nee na loolu ñoom moom di tëral leen présidente nee na moom du jël benn jour ñëw pour noppali ko blessé donc mom dal jour bu wér péng mun leen apporter dara la soxla mais pas jour boo xam da ngay ñëw pour faju nan leen non damay am temps bi pour fajoog yoy noonu dal dugguñu ci ben yoon pendant ce temps Ronaldo mom dal limu bëgg le brésilien l'original Ronaldo moy euh, ki di euh, donc Guardiola yor euh, Brésil ci coupe du monde 2026 bi ci lool nak taxna mom dafa bëgg porter candidature pour nekk président fédération bu Brésil ndax fi mu ne Brésil intérim mo fa nekk ah donc laata bobu dal moom loolu tek ci table bi indil leen ki di Pep Guardiola ki na nga xamne moy donc Ferran Torres dal euh bo mayut euh, ñaari semaine yi di ñëw dal mu wara tambalé jouer avec le FC Barcelone wala boog rejoindre groupe bi gannaaw bu mu blessé il sera disponible dans deux semaines maximum ki nak di euh, Szczęsny dal gay yi Barça Dal fi ne ñi ngi waxtana mom pour prolonger le contrat ben at même bu fekkee ne boobu ba léegi jouer gul Dal, jàpp nañ ne mën na nekk doublure bu Stegen wala troisième gardien derrière Peña ñom dal fi ne loolu la ñuy Randal Kolo mom dal daal nee na du randu benn ah. donc gëna bu fekké ni gars yi ngi naan moom daal fu Paris Saint-Germain xamé du ko ta bu démé France di duggal nee mo objectif mu sut nek nekk ci Paris Saint-Germain objectif am dal moy nee mu réussir fa té lool dal la fas yéene def ki nak di euh, donc le capitaine euh, du euh, Congo Chancel Memba mom dal nee na bëgg-bëggam nak mom moy bu jugee Marseille ci fenêtre janvier bi waaye nak nee lool loolu ci mom parce que aussi nit ñi club yi seen intérêt la ñuy mais mom dal bu sañoon dafay jóge am temps de jeu euh, Fenen, kii na nga xam ne donc Deni ancien joueur de Watford coéquipier bu euh, Ismaïla Sarr nee na pour moom euh, Salah deux joueur de classe mondiale Lolo, wax Salah mon nañu wax nekk mais c'est pas un joueur de classe mondiale Donc, ko dégg fi ngay dégg kàngam yi ci compétition trophée et tout Lolo. wax pendant ce temps le Ghana malheureusement gars yi joueur bi rek laay regretté Mohamed Kudus du dem jouer Coupe d'Afrique bi ay waay Kudus boo nekkoon Sénégalais wala boog bu ñu fekkoon naturalisé jamono jii nii ak règle FIFA yu bees amul woon non le lay def nga indi nga jouer pour Sénégal pendant ce temps la RD Congo qui enregistre sa euh, première défaite en huit matchs gagnants donc moo Congo euh, moo dañ ko door hein. Guinée moko ko d'or la RD Congo nga xamné de daal depuis bañ ils sont voilà c'est bien dynamique bu bax a baax mo len jox victoire à Guinée hein. donc c'est Guirassy actuel meilleur buteur hein, donc des éliminatoires de la CAN avec six buts l'attaquant du Borussia Dortmund nga xamné aussi aussi euh, Diane Rennes, mais Sadio Mane toujours présent. Sadio Mané, deuxième meilleur buteur, hein. trois buts, le Sadio Mane d'Ali Am, le joueur le plus capé euh, de cette équipe, l'un des joueurs les plus capés de cette équipe nationale du Sénégal, meilleur buteur de l'histoire du Sénégal actuellement. Mounek à égalité avec Brahim Abdelkader Diaz, hein. donc le joueur du Real Madrid, le numéro 10, meneur de cette équipe des Lions d'Atlas. Momi 3 buts, le double doublé, match bi passé, Gaïti, blessure, le Djugewon, donc ça Sadio Mané toujours au top de sa forme on espère que dina gën a dugalaat yeneen bi ci compétition ñu jëm gars Li nak mo moo nekkoon information ñeen bëgguna jox bëggoon hein. c'est toujours un plaisir de vous servir Len wax ngeen way di like way di abonné su baaxee ci yéen bonus ñu bu len faté gaay, yi len dem voter ji génn len dem voter ji c'est un devoir citoyen gars yi jaa jëf